tool yi daa bëri woon lool ñu ne ki ak mu toll lu nekk ngeen koy wax kii borom jom la ku dëddu këram tëj ay weer mu nekk ci àll bi ah ñëw 5 heures du matin 4 mu yeewu dem ci diini lu ne mun na lu ne mun na am daal lu lu ne mun na mais ndam yu mel nii nan la def ci géejewaay. non tubaarkal dafa dafa dafa dundalaat géejewaay géejewaay dafa dekkiwaat ci làmb géejewaay mooy làmb champion yi fii leen dëkk ndaanaan yi fii leen dëkk biir géejewaay nan ko nangu yàlla la yàlla nan nangu yàlla la bañ bañ nag da ah non non Seydou xam nga benn affaire ma wax dama kaa rusee kenn muy bàyyi Bamba Baye Rosso ki muy tiitaloo di ko naan. waaye li mu def xam ne kii wala na bàyyi yoon mais paase waxoon na day lekk xaj tey ma

Alangok ngoog ndeysaan mais l'empereur empereur baa ngoog di dugg Mo ngoog di dugg otom Na moom bere bere bu reuy ndeysaan demb ci arène nationale Dan tafatin takabal bu leer nañ Moy non di ñibi and ak Seigne Mbàkke bu Seigne ngok ci ginnaw. ndeysaan empereur a ngoog. ma di dellu. ma di dellu. ah monsieur. ma di dellu. Yo, Ay, memoro, memoro, memoro, memoro, memoro. Dai. Memoro, dai, dai jal, dai jal, dai filme moda. Dai filme, dai filme pa moda. Lan böyle. Ne buraya? cey lamb cey lamb Ariel, kusal, kusal, kusal. Baru. Félicitations. Félicitations mbër. ñu jël coach bi. coach ah coach jël nañ ko pare. mbër félicitations mbër. mais man félicitation ay jam ci wala da ngay toog tan bala bala bala Oi, que? mu toog bala gisu doom fa toog Que naa su su signature mu neex kon nag nañ ko ñaanal jàmm kii mooy lamb de am l'ampleur de l'ampleur xoolal démb mbooloo bi fi topp ñu jëm istat ñaata minute lañ def ci yoon wi nañ ko ñaanal jàmm tey wax ci moom jàmm tey wax ci moom lu baax moom loolu waaw ñi xam na seen bopp ci nga bokk yow yaay pee Fadam yaay pee doomu géeja way nga Fadam géeja way nga juddoo fi nga yeroo fi nga màggee Fadam bàyyi li nga nekkee li nga mel ñaaw na Fadam ni nga mel ñaaw na géeja way nga dëkkee man suma rakk nga bëgguma lay wax yenn yi waaye da soppeeku man li ngay def neexuma suma rakk nga bëgguma lay wax leen li xamal ni doomu géejawaay nga waaw xamal ni doomu géejawaay nga li nga nekkee fadam waaw waaw waaw waaw loolu appel ndax fi mu dañuy feere sunu victoire nag dañuy may tur ñu feere sunu victoire après ñu kanam ngeen du comprendre fadam li muy génn bëriwul fan lañ la mën a fekk ak ak fan lañ la mën di gisee ak fan lañ la mën di jotee ndax nag lii dafa baax lool ci réew mi ndax bëgg nañ ñu ci soxla nañ ko sax lay wax ngir mën di la jot mhm. ngir mën di saafarawu ci li nga xam ne moo di soxla fan ak fan lañ la mën di fekk sëñ Cheikh waaw ñun suñu adresse jamono jii fee bu dee ci Dakar ñu ngi yof yof yoof d'accord boo ñëwee ba ci dëpp gas bi rek. Mhm. foo laaj ci dëpp gaz bi rek ci yoof mhm. dëpp gaz bu mag bi nañ la kon boo taxawee ci dëpp gaz bi rek boo ootee rek dañuy génn jël la. Mhm. ay jamono nag dañu nekk Kaolack suñ suñ dëkk cosaan. dañ fay dem. comme ñi ñu soxla tamit bu ñëwee kawla lew nañu seen wala Medina foo ñu oo rek dañ euh, danañ fa fekk dañ ñu fa fekk. waaye nag boo ñu ooyee nag jotoo ñu ndax man li may tëju xalwa moo ëpp téeméeri junni li may génn. ndax am na ci yenn soxla yoo xam ne force ma diisoog suma borom tëju. tëju ay fan di ko liggéey pour yàlla def ci réew mi jàmm gis nga man sëriñ si buñ génnee naan balaa dana ñëw wala accident dana am wala nangam dana am yooyu noonu mhm. man bu ma ko déggee rek damay tëju nga naa yow da ngay yow man may dàq rek man daal boo ne nii rek ma ne nii te yàlla billahi ñu ngi koy noonu wallaay wallaay lu dul dëgg rek du yàgg non man ñeewante bi ma am ci senegal ñeewante bi ma am ci doomi réew mi bëgg ñu avancer rawatina ndaw ñi mhm. te maa ngi leen di bàyyiloo xel nag ñu ngi dugg nawet mhm. accident yi dana bëri gaa mhm. dëgg la waaye nag man maa ngi ciy def ay sarax ak lu ma ci xalaat lu ma ci am rek danaa ko def waaye nag bu ñuy dugg ci oto yi nañuy léemu nañuy léemu ay jullit lañ benn sa damaa tukki di dugg ci benn oto ndeysaan biñ dawee tuuti yëpp benn waay waa ji ndaw si ndekete chrétien la waaye gis nga mhm. avant muy teg tànkam ci ci ci oto bi ci la def seen kii yooyu noonu. Mhm. ma allahu akbar oto bi tey bu defoon accident moom rek mooy mucc ñu ñëpp dañuy dee. kon bu ñuy dugg ci oto nañuy muslu ndax yoon dafa am. rawxaan jinne yaa ngi ci yoon bi jinne yi ñooy soppaliku mbaam jinne yi dañuy ànd ak seen doom yi jinne mën na laa rawee ay ay. Abonnez-vous, ciao le Sénégal Abonnez-vous, Charles le Sénégal Abonnez-vous, Charles le Sénégal